du Mbour 2STV Sa TV ñoo ngi leen di bëgg di leen di siyaar tey ñoo ngi tudd ko arène nationale fekk fi nag champion ndaanaan jàmbaar kenn dootu ko présenté Boy Faye ñoo ngi lay bëggee. waaw maa ngi lay ziar bu a di ziar seen mbokku di ziar Sénégal. Uh-huh. di uh-huh. di wax Sénégal yal na fi jàmm wàcc quoi. Uh-huh. wala ñuy ñaan Sénégal jàmm wàcc fi. Boy Boy Faye daa ñëw seetaan si wala Boy Faye daa am ku mu indi. non dama seetaan am plus am a mu a ak waa parcelles yi. bu ci mel ni gargaare ngi ñaanal moom sama gannaaw la. parce que mën naa ne li gën a tax nga xam ne ñoo bokk benn kii maa ngi koy ñaanal ndam di ko ñaanal mbiru parcelle ak Dame Sène ak ñëpp loolu laa ñëwee tamit nekk amateur am nañu lu xool lamb moo ci dee waaw moo tax quoi gars yi naan saison bi yëpp booy fay daa dawoon lutte simple te ni instant bi jékki-jékki nga gis la nga ñëw ili euh, forme bu baax loo ci mën a wax waaw xam nga rek dama blessé woon nag quoi dama woon blessé ci tànk en plus suma waajur bu jigéen tawatoon na ko doon faj ba suñu borom mu ci def li gën waaw moom maa ngi ñaan suñu borom yërëm nga fam ak suma papa maa ngi ñaan suuf sedd seen kaw parce que suma waajur bu jigéen kenn la woon ci man wax dëgg fa royal bi mu tawatee mënu woon nekk en jour normal dama jógee ci beneen jour bi tawat bi accéléré ñu nekk ci di faj ci faj ci faj ba yàlla li mu dogal bi ci jógee nag ñu entraîné waat parce que ñun amuñu rôle làmb supporter dañuy béggee fu mën ci booy fay foo booy fay foo ne ñun ku xam na ñun làmb sembul moom la ñuy noyee moom la ñuy dundee ci àdduna parce que li ci nekk mooy ay doomu siin siin lañ sama papa la dëkk chef de lamb mënu génn si ñun suñ ko dawee sax day dugg suñu biir yaram gars yi dañuy commencé di naan booy fay daa focalisé ci bëre dóor bi moo tax muy muy foyee li simple bi non yooyu may doo ko man ci li simple ci laa juddu kooku mënu ma koo foyee lu ma am moo ko xamee ci àdduna te li ma ko lamb simple cosaan la séeréer cosaan la man cosaan bi topp cosaan du ma ko mos ci àdduna ma bàyyi mu ko waa waa jaxaaw yëpp siin siin yëpp maa leen di bëggee ah. di di bëggee amu papa sama mag ak waa Fadiouth sama papa ji fa ne na turam bi ma ko boobu mais tey jii fay booba léegi gisaatuñ la nga am combat nu fa demee noonu waaw blessure bi la blessure bi ñu nekkoon moo métti woon ñu ko doon faj waaw ma ci san sox mag yi ci dugal seen loxo mm-hmm. fajal ñu suñuy tànk ba mu wér. waaw macha allah sant nañu yàlla fi mu ne nii daal wax dëgg. mais fu mu nekk nii boo amoon combat di nga préparé ko bu baax. waaw bu ñu amoon combat dañ koy bëri. Ah. bu ñu amoon làmb. waaw dinañ ko mën a bëri. parce que instant bii li gënoon a métti weesu na. Mhm. waaw li gënoon a métti weesu na instant bii daal. ñoo ngi teg suñu carrière di xool suñu carrière nu ñu koy defee en di bëri simple ba tey parce que moom la ñuy bëggee quoi mhm. waaw booy fay ku la wax kenn du kenn a wax tey ji ko loo xamante ne am ci naqit tey ji ngeen mu xaw a diñ carrément tey ji loo ci mën a wax waaw léegi la mooy loolu biñ ko ngënkee caaga bay waxtaan ci maa ngi ak ay gaskal ñoom Adama Diouf ku ci mel ni rek rek gaa yëpp ne ci mbëru simple yëpp ne ci man maay porte parole bi. mais lu rafet la parce que lépp loo xam ne da koy yuuxu feneen duñ la dégg. ñun yaakaar naa ne ñun simple ñoo war a woote naa ñun dañoo bokk. ku bokk ba pare kenn du la boole. mais ñun ñoo boole woon suñu bopp mooy manko bi amul woon parce dafa am yoo xamante ni dafa war a jeex da ngay xool ñoom ordinateur champion yi liñ def barki dem moo njaay. suñ ñëwee wara honore war a wa waaye wara honore ci lu bëree bëri parce que xamul da drapeau drapeau la rek. waaw personne rouge bi bi ñom Sadio Mané di représenter waaw moom la ñuy représenté. nañu dimbali lay wara soule ñu jox ñu suñu way président bi li defal ñeneen ñi amne xam mode sport ci mode sport la ñu bu koy defal wa Axlu lam su doom rew mi génn defare ji def ay torofa yu am solo suñu ñibisé nan leen di téral di leen tatagal den may li ñuy may doom ko di dund sport parce que ñun nag ku bokk ci gétt gi naan ñu dañoo bokk ci gétt gi war a naan ci meewam. mais mais damaa gëm ne loolu yéen a ko waxee bañal seen bopp ndaxte tey jii équipe nationale bu ñu la soxlee to demoo ñu tëj la yenn daan yi mais buñ leen soxla yi aussi ngeen dem aussi di indi ay trophée tey ci ci biir réew mi tey kon jot na yéen ngeen fi li ma ko ñun li mën a am rek dinañ waxtaan ak suñu papa Birane Sène ak ñi ngànk CNG ndax àdduna loo gis waxtaanu biir beeg la dañ koy waxtaanee proposé suñuy bëgg-bëgg ñu ne ñu lii lañ leen ci mën a may lii lañ leen ci mën may lu ñu jóg di ko xeex ñëw wax leen ko soo ko génn def annonce bi parce que nag ay doomu réew mi lañ ay vrai sénégalais lañ danañu porter drapeau bi te bu ñu def fulla fayda ak ngor ñibbisi ñun ñi ñëpp ay médaille la ñu wekk ko suñu kër bëgg nañu ëllëg suñu doom yi suñu demee ba toog nañu papa médaille bi bi ñu la ko joxee ana bi nga paree loo am ci simple ak bi nga paree lan nga am ci équipe nationale war ngaa joxoñ kër mbaa nga am loo joxoñ ñu ko lii de mën naa doom symbole la ci bi may bëre équipe nationale loolu tàggatoo nañ bàyyi xel waaw ñu ngi nuyu ñëpp di di bëggee waa Saloum kër Mbangu Diaw ñoom sama yaay fa la dëkk ak waa Daaru Kër Momar Xoraja waa Jaxaaw yëpp yëpp yëpp cat ba cat ak waa waa Fadiouth waa Zawal waa Marlooj waa Fimela maa ngi bëggee sama gaay waa marché poisson bi yëpp maa ngi bëggee gaay ok ñu ngi lay siyaare Faat ok kañaarooga Bhage yàrá yóò fọwọ́ dé. Tamale na yande yom vote.